assalamualaikum gay yi Amadou bar senegal ha gay ma delu ci wat taxaw setlu ci tolluwaay gay do ah gay wax sama xalat wax sama gis-gis comme ni ko ñepp di defé gay ci si way rew mi di leen wax ne vidéo bi tay dañuy am taxaw setlu ci président de la république bi bi Russie si putin dila wax na la yow dila la poser question na la bo jaxalo woon putin tay lokay laaj lokay wax si problème bi loo koy wax kon problème yo koy yóbbu yow ñu jangal si problème yi Macky Sall bi li mu fa yóbbu ñu wax ci sun xalaat wax la ñun buñ demone jaxalo putin lan lañu ñuy wax vidéo bi tay du yomb gaay dila wax ne toppal vidéo ba mu jeex ndax dinañ waxaat tamit ne leen am la ben activiste sama ak ñaar ñaar la leen andal duñ leen wax nag kan la suspense lay doon buñ fa jógee nag ñu wax coalition Yewwi bi ñu téye wax suñu xalaat kon vidéo bi noonu lañ koy defee buñ duggee kër ga toog rek dinañ si tàmbale gars yi parce que mbedd mi lañ nekk bu wax bi explication dafa laaj benn genre maanaam dafa laaj concentration lii début la rek pour ñu wax leen na leen di tàmbali vidéo bi pour ngeen xaar ñu ñu ngi dugg nii kër ga su ko toog jàkkaarloog caméra bi wax ak yéen nag si li fi xew kon Amadou Baro Sénégal la boo abonné gul ñu ngi lay wax nga bës bouton bu xonk bi gis nga boo ko bësee nga abonné wala wàll si cloche bi bu ko defee vidéo buñ dugal nga bokk ñu ko jëkk jot après générique bi nag ñu tàmbale vidéo yi jaa ngeen jëf gaay yi hey salaamaaleykum gars yi comme ni mu leen ko waxee woon rek ci tàmbali bi ah naa guddee nag mais Sénégal ma ko tax moo jaral di leen waxaat ne leen Amadou Baro Sénégal la di ñaan sunu kàddu yi fekk leen ci jàmm donte jàmm jafe na ci réew mi waaye ñu koy ñaan mi dara tawul di leen wax ne dañuy dem ci Macky Sall kër Poutine ñu déglu lu fa jot a wax buñ fa jógee ñun man ma wax comme ni ma leen ko waxee woon bu ma dagoon jàkkaarloog Poutine la laa koy wax waaye nag balaa ñuy def dara balaa ñuy xool vidéo boobu dañuy déglu sunu maam ji Abdoulaye Wade am na solo loolu li muy wax ngeen bàyyi ko xel ko <laughs> lu mel na ko xam nga wolof nee na xale bu ree bu reeree ñu nekk di ko ñongal baayam mag ki xaw ma dana dégg wolof yooyu xaw ma ko dégg wolof dafa ni bu ree bu reeree dañuy nekk di ñongal baayam moom la ñu wax ci mag ki daal man xaw ma ko woon sax ñi ñoom ma ko ñu ne ma ñi ay dëmm la ñu wax xoolal Mamboy Mamboy dafay déliré sët yi di reetaan di xaqataay Sénégal xool ngeen Sénégal fu mu toll déglu leen Mamboy parce que nag li muy wax da leen arrangé ñoom muy sénégalais. Ablaye Wade ngi nii kee du Ablaye Wade rek ki njëkk jàll kii mooy Ablaye Wade. maa ngi mujj lii rapport lii lii rapport ba dellu si ba dellu si ci biir dëkk bi. dellu si kon nag dina arrêté yi muy def. man nag dañu may wax ni. yaa ko def li mu nekk c'est vrai. mais man man maa xool nii sax xam ne nekk ci biir. yàlla rek moo mën loolu. def naa ko confiance. समझ नहीं में आता मैं कैरेक्टर लेकिन मुझे बाद में किसी में करूँ मुझे जमा हो मुझे ना करूँ दिया के है du ngeen jàngat si waxu la lay Wade bi commencement bi dafa nekk maam di wax ak ay sëtam waaye nag mujjanteel bi nekkaat na Ablaye Wade bi ñu xamoon duñ ko wax maam maître Ablaye Wade léegi nag dañuy dem Russie seeti sama waaja mook waaja mook ponkal ma waaw ponkal mi buñ demee seeti sama waaja ak ponkal mi ñu taxaw déglu leen bu waxee ba nopi ni wax comme ni len ko waxe won ci tambali ba gelawon wax ni len Amadou Baro senegal la kon ndank ndank rek gaa ndank ndank ma bi waaw Э, je salue le rôle de la Russie de, dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié au nom de laquelle je viens euh, pour les 54 pays de l'Union africaine fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr... Euh, non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur, euh, sur nos États, sur nos pays. И э, действительно Россия сыграла огромную роль в э, независимости африканского континента, которую африканский континент никогда не сможет забыть. И именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, в том числе двустороннее сотрудничество России и африканского континента. Но мы также здесь сегодня для того, чтобы поговорить о кризисе и о его последствиях. Vous avez suivi euh, les différents votes aux Nations Unies la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays euh, africains quand même ont évité de condamner la Russie dans, cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, euh, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir euh, pour demander euh, de prendre conscience que nos, pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes, des victimes de cette crise au plan économique. вы знаете, э, ряд стран э, голосовал в э, рамках Организации Объединенных Наций за резолюции, и при этом нужно отметить, что позиция африканского континента очень разнородна, и несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России. Можно посмотреть также и на Азию, на Э, Ближний Восток, на Латинскую Америку, мы видим, что мир в целом очень следит за развитием ситуации. И э, я возлагаю действительно большие надежды и приехал сегодня сюда в том, с тем, чтобы попросить, э, э, с тем, чтобы рассказать о том, что страны, которые находятся так далеко от э, места развития конфликта, все-таки испытывают на себе его последствия. Mais les, les sanctions aussi contre la, la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux, céréales venant de Russie, euh, au blé en particulier, mais surtout aux, euh, aux engrais, aux engrais à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça, ça crée vraiment de sérieuses menaces sur euh, la sécurité alimentaire du continent. Э, санкции против России еще более усугубили эту ситуацию, и мы сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России, и что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более э, сложна, и это влечет с собой последствия для продовольственной безопасности Африки. mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen le mardi euh, en leur disant oui, vous dites il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais soit vraiment hors de sanctions Сегодня утром буквально разговаривал с моим коллегой из э, африканской, из комиссии африканской. man moom xam naa ne nekkuma si xelu Poutine de mais Poutine am na lu ko am na billaay wallaay ñaata kilomètres et des nga dem toog bi nga demee toog nga yóbbu baatu cinquante quatre dëkk boole ci Sénégal gis nga muy folote kon moom nee na ñun suñu problème mooy bele bele bele bi ngi dugg bele bi la la bëgg moom maanaam guerre bi gaay di guerre xeex bi ñii di xeex mu ne pour ñoom sanction bi ñu bàyyi bele bi ak engrais bi loolu la sama waa ji wax waaye <clears throat> man su ma demoon ci Poutine dama koy laaj lan nga manqué lan nga tële ma jàppale la ndax Poutine moo soxla ndimbal Poutine moo nekk ci ay ñun xeexuñu xulowuñu ñu ngi ci jàmm ak salaam ñun suñu problème mooy dañoo fal président président bi dañ ko fal mhm. ngir mu liggéeyal ñu sunu réew si liggéey bu mucc ayib mu jël sunu dëkk delloo ñu ko loolu lañ ko laaj maanaam dañoo bëgg moom sunu bopp moom sunu koom-koom moom sunu réew loolu lañ ko laaj mais du leneen deful loolu yëpp dëkk bi nag li tali ponk ko tabax koy esaat lolu ñaata teer la mënoon a bay lolu mënoon na sax bay ay bele ba aduna bi yëpp di ci dundu mais on le fait pas duñ ko def ndaxte France dafa taxaw man gëm na né blé bi ñuy laaj ñuy laaj waa ak engrais bi gëm na France ko soxla te bés bu ko putin joxé lolu du ngeen gis blé man xamna lolu du ngeen gis engrais da koy jëbal gaay man suma ma na ponkal mi ki mo yengal aduna li tax mu ñew bu laajoon xalaatu askan wi danañ ko ne putin kay samol ni sunuy sunuy frontière u réew Mali degoto fa jihadist Mali ñoom léegi dem léegi ci bambara lañu jëm bambara lañuy làkki dañuy bàyyi français lu tax te poser question Mali suukar fukki yoon di fois la gën yomb fii fii Sénégal Mali moom waroon na wax sa waay ne ko Mali damay signé ak embargo ndax lan ndax Russie mo nek Mali wa Mali dañu dapp français yi mu and ak français yi di sotlé tuba bi mo tok ni waji il fait semblant waye man Amadou Baro senegal ku am sañ-sañ ak fit ak fulla yobbu sama kaddu fenen waxe ko fa te yabaluma la amana naa sañ-sañ wax ne bo demoon lii laa bëggoon nga waxal ma donte nak bat bi yeggu fa parce que damay def vidéo yo xamantene sax Kan du passé cinquante vues mu leer mané ya ne li may def yegul fenn demul fenn waye duma téré wax fi ñëpp di waxé ngir suñu sëtaati sët buñ fi exé sax fekkat fi li né ah mam diw de moom bokkoon na ci ñu nekkon ci réew mi té nangoon won kenn not leen té ñu ngi doon wax seen xalaat ak seen gis-gis donte newoon nañ doole lool may wax ne leen yow boo jàkkaarloo nag Poutine loo koy laaj commentaire ko soxla naa say commentaire ak sa avis lii nag rusloo nañu lool ndax man dama naan barki dem boo paase moom xanaa dafa fàtte problème mu santé hum gay yi gars yi est ce que am nañ problème mu lekk gars yi je pose je me repose la question est ce gay am nañ problème mu lekk seen Afrique cacao xam ngeen cacao gis ngeen Nescafé bi ngeen di Côte d'Ivoire la jóge gis ngeen cacao kuy lek chocolat vanille hmm chocolat gis ngeen lu mel ci aduna àdduna Côte hmm? d'Ivoire lay jóge ressource naturelle yi jóge Afrique ba tax dëkk yi di ñoddi mag mag lu yëpp fi lañuy roté buñ jógee fi nak bala ñuy déborder di wax lu ëpp par respect aussi comme liñ leen ko waxee woon du loo war a wax rek wax ko ak loo bëgg wax wax mais borom mais junj doy na borom xel ñu jàll si activiste yi ba leen di wax mooy sàmb abidjan yi ñoom ñoom législative yi ñoo leen yëkkati te dañu am cible nag waaw ñoom duñu wax attaqué keneen nag mais dañu am cible mais cible boobu moo tax ñu xam ne ñii kat noo far fa noo dafa am fu ñu far te dafa am ku leen yónni kon waxoon nañ leen ko dinañ leen wax activiste bi ànd ak Samba Abidjan ak activiste bi ànd ak peuple bi ñun nag activiste peuple bi lañu na leer di leen waxaat ne leen sama waa ji rusloo na ma bett na ma te Poutine mii bu ko yàlla mayoon mu ñëwoon si xool non dina na ko ne sama waaja li ma waxoon du loolu te man damay ragal sax mu woo Assimi Goïta ne ko ndax gaayan bi yéen a ko yebal embargo hmm? bi tax sëñ Maye Niass bi mu naree ñëw dañoo ko reporté parce que mënu woon survoler kaw peuple Mali parce que embargo dafa am est ce lever nañ embargo bi ba légui la lañuy xaar pour lever embargo eau bi ah monsieur le président de l'union africaine ousmane sonko ngi ñew kon gayen bul quitter bul arrêt bul quitter taxawal ñu dem jëli ousmane bu ko défé bala ñuy jëli ousmane sax dañuy wax ci sax activiste bi mu leen wax samba abidjan bi comme lu mu leen waxone leen suspense la ñaar lañ kenn ki nag xam naa si kaw vidéo bi dinaa fa jaare man tur bi sax laa xamul keneen ki moom xam ngeen ko waaw du kenn leen ko présenté bu ñëwee dina leer kon kon gars yi ñu ñëw Kayak nilen kaw xewon Ousmane mu sell mi yaakaaru jeunesse bi yaakaaru kalau yaakaaru Afrique kii bu jàkkaarloo nag Poutine dina ko wax leen lu bokk teg waaye lim koy wax déglu la mbokk yi asalaamaaleykum defe naa kàddu bi du gudd ndax ajjuma te waxtu juma bi di remercier ñi seetaan ñëpp di leen nuyu di nuyu journaliste yi fi teew di nuyu suñu naataango ci politique yi nekk fii muy ñaari coalition yu mag di la grande coalition wàllu ak la coalition Yewwi di dore sama kaddu ci indi sama goro lamin cham wax legi moy di félicité ak di am kontante ci taxaway bi nga xamné ne suñu baye suñu serigne Cheikh Maay ñass amna ko ba yalla defal ko ci ndam go xamné ne defe naa nañu bëree bëree bëri bëri ci ay kurel ak ay borom daraja loolu nag bettuñu ndax bu ñu fàtte ni Baye Niass dafa waxoon l'Afrique aux Africains ñuy profité ci ocasion bi di wax ni il faut ñu gëm suñu bopp ñun africain daa di dekkelaat suñuy ressort interne ndax su dee ñun ak ñun rek ci suñuy société am nañu ay pexe ak ay système yuy régler suñuy problème te bis bu ne ñu dund ko waaye keroog bi ñu demee ba ñu complexé ñu nag nga xam ne lu ñuy def rek jàpp nañ ni su tubaab bi jógewul fële ñëw régler ko du am problème te li ci ëpp tubaab bi mooy taal day bi mooy jaay ngànnaay ndax Afrique kenn fabriqué wu fi ngànnaay moo ciy profité pour exploiter nag placer ay nitam exploiter réew yi kon ressort yooyu tey Cheikh yi def ci lu rëy rëy Cheikh Amadou Bamba am lu mu ci amoon ci taxawaay ci sàmm ak défendre del bu ñuul ba wax ni xam-xam ak mën-mën yàlla du ko calqué ci der bu weex wala der bu ñuul cheikh sëñ alaaji malik si am lu ci taxaw taxawaay boo xam ne tey moo indi relation yu am solo ñu am ak réew yu mel ni Maroc wala Algérie kon suñuy njiitu diine dañ ñoo dañ ñoo devancer trop ci seen gis-gis ci diplomatie waaye it ci ouverture kon def na lu rëy te xaarul Sarkozy sant ko ko wala Macron walla keneen koo xam ne ay intérêt bokkul ak suñu intérêt mbokk yi dañuy sant yàlla bi mu ñu mayee daje gi su ma nee daje gi nag du conférence de presse waaye daje ñaari kuréel yi

gaa ñu dellu mooy ñu jël majorité. parce que man nekk naa député pendant cinq ans yi weesu ñeneen nekk nañ fi député xam nañ ñi député boo yorul majorité yow ak ñàkk député yéen a yem ci assemblée nationale bi nit ñi jàmbaar lañu de gis ngeen min eh, ñi nekk minorité assemblée nationale jàmbaar lañu da ngay dem commission. xam nga eh, suñu demee sax plénière caméra yaa ngi fi Cheikh Sëñ Abdou xam na wax mais commission amul caméra amul dara fa la ñuy jóg dinañ la saaga li ma bañ a tudd dinañ def lu ne boo fa tàngee xol di nga fa xeex commission même chose te mu leer la ni la ngay discuter yow yaa wax ba sa put bi wow waaye ngoon si balaa ñuy jóge foofu di nga gis député bu nelaw nelaw nelaw ba ñu ne wote gars yi yee ko ne ko wote na mu ne wote naa su dee sénégalais yi boobu assemblée la ñu bëgg muy nañu joxaat mas Macky Sall majorité waaye bu dee dañu bëgg assemblée buy joué rôle assemblée buy def contrôle de l'action du gouvernement luubal gi bëri na ci réew mi càcc gi bëri na suñu pétrole ak suñu gaz du tey lañ ko jaay de xanaa kay dañuy feddali waaye bi mu àndeek ak rakkam ànd ak bandi boobu ñuy wax Frank Timis ma bind ci ab téere daa di jaay gaz bi parce que gaz bi mu ëpp solo pétrole téeméeri junni yoon bi tey ci gaz bi la président allemand ah mën naa mos nañ fi ñëw de mais man maa ngi doog a fàttaliku fu ñu ne président allemand ñëw na fi peut-être daan na am. waaye gëñ na li ko andi mooy guerre bi am te Russie tey imposé loo xam ne ne leen nag sama gaz naa leen ko jaay ci ni ma neexee ci prix bu ma neexee te dangeen may fay en rouble dootuma nangu ngeen fay ma en euro loolu mooy coow li moo tax gazu daka Sénégal gi tey occidentaux yi seen bakkan lañ ci teg bu ñu amee nag président boo xam ne nuñ ko wax mu ne wiw nañu xam ni duñu gis dara ci suñu suñu gaz bi ña ngay préparé oléoduc boo xam ne day démarré Ndakaaru day démarré suñu ci fële euh, euh, tortue justement tortue bi dem ba Europe fii ngay toog Ndakaaru ñu naan la am nga gaz te doo ci gis dara li xew Congo xew feneen ak feneen loolu la ñuy waajal neuro loolu mooy coow li moo tax gazu Dakar Sénégal gi tey occidentaux yi seen bakkan lañ ci teg bu ñu amee nag président boo xam ne luñ ko wax mu ne wiiw nañu xam ni duñu gis dara ci suñu suñu gaz bi ña ngay préparé oléoduc boo xam ne day démarré Ndakaaru day démarré suñu ci fële euh, euh, tortue justement tortue bi dem ba Europe fii ngay toog Ndakaaru ñu naan la am nga gaz te doo ci gis dara li xew Congo xew feneen ak feneen loolu la ñuy waajal kon su dee bëgg nañu xam li xew ci réew mi luubal suñu ressources naturelles yi luubal suñu euh, euh, kopparu réew mi surfacturé marché public yi lu ne xew na ci réew mi bu dee Sénégalais yi bëgg nañ li xew ci réew mi dëgg dëgg dëgg dëgg en terme de contrôle de l'action du gouvernement nañu jox coalition bi la majorité six mois lañ leen may six mois di ngeen gis di ngeen dégg wala di ngeen gis lu leen jommal yéen ñëpp bu dee it bëgg nañu ñu voté ay loi yoo xam ne méngoo nag li réew mi soxla parce que député ñett mooy rôle am l'action du gouvernement voter les lois et la fonction de représentation mooy xool li xew ci dëkk bi te du yoon boo demee assemblée nationale nga defar ngeen gis lu leen jommal yéen ñëpp bu dee it bëgg nañu ñu voté ay loi yoo xam ne méngoo nag li réew mi soxla parce que député ñett mooy rôle contrôle l'action du gouvernement voter les lois et la fonction de représentation mooy xool li xew ci dëkk bi te du yoon boo demee assemblée nationale nga defendre ko fa bu dee lool la ñu bëgg ci député man di député woon la defe naa taxaw naa ci assemblée lu Sénégal yëpp teg seen bët moom Mamadou Lamine Diallo mii député la ñëpp teg nañ seen bët li mu def Cheikh Abdou Bara Dolly même chose keneen ak keneen ci ñëpp ñu nekkoon député euh, opposition nag nañ ma libal benn député pouvoir boo xam ne mun nañ ne ràññee nañu taxawaayam assemblée nationale bañ na bañ nañ bu session bu amee la ñuy jàllale lépp mooy intervention opposition doo fa gis ñu jàllale intervention waa pouvoir bi loolu nag occasion la am nañ ko buñ ko sàggane ci fan yi di ñëw it dinañu démarrer benn tournée préélectorale parce que élection dañ koy préparer dinañu fexe ba am plateforme bu ñu bokk te ma wax ni nag man de la ma fas yéene mooy ubbi tournée préélectorale boobu fële ci Fuuta ndax ki yaakaaroon ni titre foncier la fa am bi mu demee ba jaaxle fexe na ba suñu liste ñu compétirul foofu Sénégal kenn moomul kenn kenn moomul fépp te ñëpp lot waa Fuuta ñoo gën a sonn kuy sonn tey nett ko bandum bi gisuñu ci dara lu dul ay dige foofu lañ koy commencé ndax am nañu yéene ci ñoom nag ah. wax ji feeñ na de Amadou Baro Sénégal la waxoon na leen wonoon tegaloon na leen ko Sonko waxoon na ko fii Amadou Baro Sénégal avertissement bi jaat bi jot na avertir nañ leen kon nag yéen ah yéen moom seen xel seen xalaat yéen xam lu ngeen bëgg yéen xam ni ngeen bëgg waaye moom bu ñu bu ñu gis nga bu ñu góorgóorluwul gis nga li waa ji wax yëpp gis ngeen tiwo bi gars yi nar a créé tiwo tiwo la gars yi di créé tiwo mooy village des Tortues xaw ma gisement des sama jumul kër Ndiaye Lo la wetu kër Ndiaye Lo si à autoroute à bi sorti ba boor boobu lay doon de. foofu lañ koy samp mooy foofu noonu nga foofu foofu xoolal foofu la calcaire bi nekk calcaire bi foofu tamit li fay génn doon ko gis sax du ngeen gis sax fu muy jaar du ngeen xam ne sax Sénégal am na calcaire bark yàlla parce que kenn du leen ko wax kenn du leen nàndal imaginel gaz bu ñuy defaral tiwo Hmm? affaire dina war na dina war bu fekkene nak ah da ngay préférer ñu tok net ne nemb ne maral di setan, so waxe ñu na la moytul ak ba do am problème ak ñi na la di courage ak ñi de la ñi de la ñi de la molo ñi de la ragal ak ku ne di andé explication parce que lu ëpp ci Sénégalais yi dañoo jiital sentiment émotion maanaam seen xol ngeen jiital te mbir mi du xol mbir mi xel la dangay xalaat boo xalaatee ne lii moo ma ne lii mooy tax ma am jàmm donte day metti du la neex du la arrangé mais def ko ndax nga am jàmm loolu la Poutine di def muy xeex moo tax ñu naan leen àdduna boo si nekkee seen waykat bi waxoon na leen ko waaw da ngay léewtoo da ngay léewtoo ba waaw Youssou Ndour Youssou Ndour sama ko wax àdduna xaw ma lan da ngay léewtoo ba tas xaw ma waaw <coughs> Wally Seck sax am na lu mu si wax moom tamit. waaye damay fàtte way bi <laughs> parce que man man naka jekk man affaire yi seen seen mbalax ma seen way ak yooyu noonu man sawaruma si quoi mais moom tamit waxoon na si quoi àdduna ma waaw géew àdduna boo si nekkee da ngay da ngay léwatoo ba tas maanaam ku bëri ñu dal sa kaw ku bëriwul ñu dal sa kaw genre affaire foofu lañ toll maanaam àdduna fii ñu toll nii lu waay di jàng hmm? lu waay di jàng na na jàngi xeex da nga xam ne sànq yaa ngi ci àdduna dangay xeex dangay xeex dangay xeex ba jóge fi amul noppalu sànq yaa ngi xeex yaa ngi am jàmm sànq yaa ngi toog di seetaan ñu ngi lay noot loolu mooy àdduna waaye nag Sénégal ñoom dañuy naan teraanga masla waaye nag kenn du la man magum jëmm moom kenn du ko wax nooy doxee ak nooy dundee waaye sama xalaat laay wax ak sama gis-gis am naa ci droit comme ni ko ñëpp di defee waaw Poutine mii bi ko affaire yi tollee foofu daa génne ay armes di guerre ne waa Russie man Poutine xool naa bu baax li may def xam naa bu baax li may def ndax fii ma toll nii xeex rek moo fi sës te xeex bi pare naa ko waaj naa ko te tey bu doon di yoon dëgg waa ji warul mënoon ñëw fii ah, di ko laaj ndimbal <clears throat> di ko ñaan di ko wax quoi que ce moom kay da ko dafa waroon ñëw dafa waroon ñëw dooleel ko moo lay won ne bul bi dafa tourné nit ki naka la mënee nekk ci guerre nga naan ko bele moo tax sawaay da doon rek Poutine da doon rek dafa jommi dafa waaru léegi nag dañuy jubali tout droit ci Samba Abidjan yi mooy activiste Samba Abidjan yi ñoo ñoo ma leen a yërëm dañuy dem ci ñoom ku njëkk ki nag moom dañ koy bàyyi mu wax moom tontoom moom bu waxee ba pare moom dañ koy tontul bopp moom dañ koy tontu vidéo bu vidéo moo koy tontu waaye nag deuxième bi moom bu ñëwee moom man maa jël samay responsabilité déglu ko analyser ay waxam quoi parce que waa ji jot nañu analyser ay waxam waaw jot nañu analyser ay waxam parce que waa ji waa ji doy na waar quoi mais nañ dem si première bi ba pare soo ko jàdd fële léegi mooy jëli vidéo vidéo bu njëkk bi kon gaay ah eh, salaam gaay je pense que xam ngeen waa ji boobu am na solo trop hmm? ni ma jàngatee du dara lu dul Ousmane Sonko ku ma xam la comme leen ko waxee woon rek activiste Samba Abidjan yii lañuy andi moom nag dina wax ni déglu ko bu paree nag tontom mooy ñëw vidéo moo koy tontu ñu duñ ko wax duñ ko tontu duñ ko wax dara parce que nag doomam ci boppam mooy génn tontu ko boppam moo tax kon gaay Sénégal da ngeen bëgg ngeen yeewu ngeen xam bu baax kan ak kan ngeen di déglu ak kan ak kan ngeen war a xool ba di ko jéem a doyloo bu kenn waru kenn warta mën a jaxase seen xel ak seen xalaat parce que ay nit ngeen ay borom xel ngeen looloo waral taxaw seetlu amulu boro Sénégal léegi dañuy déglu commissaire ancien commissaire <laughs> xam naa bu yàgg xam na ma bu yàgg xamante nan bu baax a baax a baax. public. avant ñu koy. avant ñu génne fonction bi bokk naa ci ànd ak moom bi mu commencé dugg ci politique boobu maa ngi soog a génn police. boo gisee ma dand ko tey décidé ni damay wax c'est parce que xam naa ka te xam na ma xamante nanu xam naa nu doore teel naa gis nii nit la ki nga xam ne fi mu investir ci fitna lu ñu jeme ci choono lu ñu jëmee ñun Sénégal parce que nit bu fekkee ni mënul ànd ak nit lul ci doole boppam ku mu àndal da ngay topp ci gannaam ku mu àndal da talul sax wax ak nit ñi ludul ànd leen ak man wala dem naa sama yoon suñ mosaan ànd comme man maa ko gënoon jege waxtaan wi doon waxtaan ak ñeneen nit ñi nga xam ñu ngi may dégg fekke wol man ka man ka témoigner man maa doon toog sax am temps wu waxtaan mais ñoom amuñu woon temps wu waxtaan moom amuñu woon temps wu waxtaan man ak moom ñoo doon ànd ma dem ba xam ni kii ku mu ci doole la investir ku mu àndal itam dala yirif mbala mu bàyyi ko te itamit am na ruq-ruqaat yi nga xam ne maa ngi doon gis ñuy dugg di wut ay pexe loolu jëmalewul réew mi kanam ma rocceeku dem sama kër toog ba léegi waxuma moom lu tax ma toog damaa dem toog reer ak moom ba noppi dem sama kër toog du ko weddi kon xam naa que tey bu ñu demee ba mu indi loolu ma wax leen ni leen Adji Sarr dafa ñu soowee comment parce que mbiru Adji bi muy toj dafa fekk ñu lalon ay pexe depuis très longtemps mang koy wax depuis 2019 mille dix neuf wax attention. ñan moom Sonko. ñu Sonko ak keneen ak keneen. insurrection attention subversion parce que ñi ci mbedd mi leen bugg joté pouvoir bi. depuis 2019 donc maa suivre lolu gis ñu ci pexeem yëpp mu ngi lalu ci fexe organiser organiser infiltrer même les corps de défense et de sécurité Nous problème capitaine Touré dama infiltrer les forces de défense et de sécurité am ay nga ci lay pouvoir ko ci appel de pied yi tout le temps tout le temps ak sombre infiltrer même les corps forts de défense et de sécurité L'autre moo indi problème au capitaine Touré taxawaay et de sécurité problème capitaine Touré De les corps forts de défense et de sécurité L'autre indi problème au capitaine Touré De manière infiltrer là les forces de défense et de sécurité Vous dites même les corps forts de défense et de sécurité loolu moo indi problème au capitaine Touré dama ne infiltré là les forces de défense et de sécurité Vous ay prêt à ay leviers yi nga xam ne ci mbedd mi lay jëlee pouvoir bi. tempérament doy na ko dugal ci nag appel de pied yi muy def. MFDC tout le temps tout le temps avec le lëkkaloom ak force yooyu sombre Vous bari de xam da koy juñ ci xel rek daal qui avancé. Mhm. ma tranquillement Et sous ta ni ma génne réew mi ci biir 14 personnes dee mu taxaw tey nii ma génne nit ñi ci biti deux cent personnes ñu dem dama naan lii du hasard parce que loolu la préparé woon mais bëli yoon dafa rëcc mais bi yoon da ngay taxawalaat encore pour ñu indiwaat les mêmes choses parce que Ousmane Sonko du ci neen ci réseau maillage bu claire taxawu Sénégal complètement teg ay réseau teg ay nit yi nga xam ne su ay ñoo ñoo jëkk nem mm. daal di xëcc nit ñi utiliser mécontentement bi te doon ko yore ci organisation bu clair ñu mën ci tudd ay nit ma am ci ay tur am ci ay pexe am ci ay enregistrement yi xam ne ko organisation bu clair ñu mën génne réew mi ci biti te defoon na nga mu taxaw tey nii ma génne nit ci biti deux personnes ñu dem dama naan lii du hasard parce que loolu la préparé woon mais bu yoon dafa rëcc mais bi yoon da ngay taxawaat encore pour ñu indiwaat les mêmes choses parce que Ousmane Sonko du ci neen ci réseau maillage bu clair taxawu Sénégal mu taxaw tey ni ma génne nit ñi ci ci mbedd mi lay jëlee pouvoir bi. tempérament doy na ko dugal ci nag leneen ak leneen ba appel de pied yi muy def MFDC tout le temps tout le temps ak lëkkaloom ak force yooyu sombre lu bari yi xam dëkk koy juñ ci xel rek daal di avancé. Mhm. ma génne ci moom tranquillement tey su taxawee nii ma génne réew mi ci bii te defoon nag nga quatorze personnes dee ci. mu taxaw tey ni ma génne nit ñi ci biti deux cent personnes ñu dem dama naan lii du hasard parce que lool la préparé woon mais bëli yoon dafa rëcc mais bi yoon da ngay taxawalaat encore pour ñu indiwaat les mêmes choses parce que Ousmane Sonko du ci neen ci réseau maillage bu clair taxawu Sénégal complètement teg ay réseau teg ay nit yi nga xam ne su ne ay ñoo ñooy jëkk dem daal di xëcc nit ñi utiliser mécontentement bi te doon ko yore ci organisation bu clair ñu mën ci tudd ay nit ma am ci ay tur am ci ay pexe am ci ay enregistrement yi nga xam ni daf ko wone ba mu clair net dama la wax lu clair en deux mille vingt am nanu ba am ay enregistrement yi xam ne day wone ni ñi foogoon na ni nguur gi jeexal na. déet ñu koy waxante ci seen biir. c'est ça le problème donc su dellu see tey mu woote waat loolu dan naan li fi nekkoon moo nekk ba léegi tey bu wootee armée pare na déjà parce que doon yore xaalis doon yore ay moyens. ay pexé am ci ay enregistrement yi xamni ni daf ko woné bon clair net dama wax lu clair en 2021 am nanu ba am ay enregistrement yi xamni ni day woné ni ñi fogon na ni nguur gi jéxal na ñu koy waxante ci seen biir c'est ça le problème donc su délu c'était mu woté wat lolu dañ nan li fi nekkon mo nek ba légui tay bu woté armée paré na déjà parce que doon yoré xaliss doon yore ay moyens. moom Ousmane Sonko armée doon xaalis armée doon yore ay moyens yi nga xam ni moom la ñu yëkkatee nit ñi di fay ay nit. guérilla quoi. guérilla occupation espace bi infiltration zone yëpp mun ñu ko wax ci antenne bi nii. nguur gi jeexal na. am ci ay pexe am ci ay enregistrement yi nga xam ni daf ko wone ba mu clair net dama la wax lu clair en deux mille vingt am nanu ba am ay enrichissement yi xamni day wone ni ñi fogon na ni nguur gi jéexal na déet bay ñu koy waxante ci seen biir c'est ça le problème donc su delu si mu woote wat lolu dan nan li fi nekkoon mo nekk ba légui tay bu wootee armée paré na déjà parce que doñu yoré xaalis doñu yoré ay moyens doñu yoré xaalis armée doñu yoré ay moyens yi nga xamni mom lu ñu yëkëté nit ñi di fay ay nit guérilla quoi guérilla occupation espace bi infiltration zone yëpp mun ñu ko wax ci antenne bi nii. mais c'est un homme dangereux te xam na li muy wuti te dafa jaay ba noppi réew mi mu koy. moom ki jeexal na. ñu koy waxante ci seen biir. c'est ça le problème donc su dellu see tey mu woote waat loolu dan naan li fi nekkoon moo nekk ba léegi tey bu wootee armée pare na déjà parce que doon yore xaalis. doon yore ay moyens. moom Ousmane Sonko armée doon yore xaalis armée am doon yore ay moyens yi nga xam ni ñu yëkkatee nit ñi di fay ay nit. guérilla quoi. guérilla occupation espace bi infiltration zone yëpp mun ñu ko wax ci antenne bi nii. mais c'est un homme dangereux te xam na li muy wuti te dafa jaay ba noppi réew mi. mu ngi ko jaayee soo buggee pouvoir ci subversion il faut nga am ay lëkkaloo yi nga xam ne da ngay d' accord dafa jaay réew mi su réew nag demee tool ba foofu ku nekk si ñun day jël responsabilité man de jël naa sama mos xawma dinaa ak wala ma àgg mais comme man maa wax tey hmm. euh, ñuy ànd di wër Sénégal di ànd di fanaan ci hôtel di ànd di réunion ci siège am bu bugguma dugg ci Pastef loolu rek laa réussir mané ko dédé duma dugg ci pastef yi nga xamni da ngay d'accord accord dafa jaay réew mi su réew nak démé toll bu foofu ku nek si ñun day jël responsabilité man dañ jël na sama mos xawma na ak walu mag mais comme man ma wax tay ni wat na ko ci alxuraan ni ñi xam Ousmane Sonko bi muy soog a dugg politique man ci la bok ñuy and di wër Sénégal di and di fanaan ci hôtel di and di réunion ci siège am bu bugguma dugg ci Pastef loolu rek la réussir ma ne ko déedéet du ma dugg ci Pastef xuraan hmm. nit ñi xam Ousmane Sonko bi muy soog a dugg euh, politique man ci laa bokk ñu ànd di Sénégal di ànd di fanaan ci hôtel di ànd di réunion ci siège am bu bugguma dugg ci Pastef loolu rek la réussir ma ko déedéet du ma dugg ci Pastef ba muy roccee ko mom musuma nekk militant wu pastef mais nit la ku ma soxloon di ñew sama kër guddé bëj dama and ak mom bima gisé gisee lu ma xam du laa ko bàyyi ma ngi ni di wax kon tay su jëlé bobu responsabilité dama jël responsabilité bu mat bu génné sénégal wax lu melni da danaan ko mënu fi nek parce que mom lo réew mi su ko défé il faut que ku nek jël sa responsabilité ñu dem tegeenté tëgganteeg moom dën ba woon que nekk moom réew mi non rek la mëna sottee bisimilah. sëñ bi lan moo tax yéen ñi nga xamante ni yéen a bokk passif sëriñ si nga xamante ni ñooy ñaanal waa passif ak li ko wër ñoom ah, jàpp nañ ne à part Sonko keneen baaxul pourquoi loolu tamit bëgg naa nga andi ci ay leer. ñoo tay bi ci jiitu ma tay ñoo tay fii tax bëgguma ñu teel faa dugg parce que bu ñu duggee ci Sonko euh, tey débat bi mën na yàqu mais nañ njëkkee ci li nga xamante ni mooy lu yéeme. ku ne ah. kenn du dugg àjjana di génnaat doo dugg ci Sonko di génnaat dégg du ma dugg àjjana mukk di génnaat. lu tax nga ngay dugg ci Sonko naan nañ génn fa demaat fanaan. dama di digg bi. dégg bu ma defati loolu. bu muy commencé boo bëggee may wax lu neex nit ñi di wax li ma neex sama xol man. dama njëkk a laaj Ousmane Sonko. moo may dëggal. bàyyi dima dima laaj dima laaj yi nga xam ne nii maanaam bu Ousmane Sonko noppee seen am-am ak seen man-man ak seen daraja ak seen yëkkatiku day nëbbu. Sonko convoqué nañ ko dafa war a wuyu ci. bonne question Ousmane Sonko nag lañ laay laay wax ak tey musuma waxee ak moom nii nag. musuma waaw musuma wax ak moom nii mayatuñ la ngay toog ci télé bi ak bu la ko mënti wax loo naan mooy wuji bu ngeen bopp sa bakkan bii boo koy fooy ñun fayewuñ sooy fooy sa laaj booy fooy sa dëmm ji ñun fooyewuñ ko lenn nag ba ñu ko diggante nañ ko def boo nañu bu leen xeex duñ xeex bu leen yàq duñ yàq ndax li ñuy yàqal réew mi la nangu nañ ko bu leen saaga yaruñ ñu duñ saaga waaye nag kantaa ñu gunge la ah loolu nak, dëgg dëgg nag Ousmane nag lépp loo ñu aaye wala nga tere ñu ko danañ ko def ba mu des lii nag bu óor bu ne yaa ngay dem buñ ko mënoon danañ danañ jug dem topp la buñ ko mënut bu ñu raam it danañu am foofu raam dem waaye kooku moom aujourd'hui nga bañ rek mënuñ la cee topp ci loolu. waaw gunge gi moom ko raw fas waaw euh, boobu sa diggante ak Ousmane la wala euh, euh, moo tax ñu am confiance boobu ci yow. alaaji dégg fàcc ndigg moo gën a ndaw ci li may def ci loolu nee naa la man Sonko ba ko kenn bëggul sëriñ seet di ko daw man boobu laa daw raxas ko ba mu set ngir ñëpp bëgg ko. dégg ah, nga li ma yëg wala nga xam li may xam wala nga bëgg a dégg li ma bëgg a wax. ba ko ñëpp dawee laa ko jël man bëgg ko assume sama responsabilité ay plainte di wàcc ay maytu xaalis di wàcc may rejeté ndax lan ndax gis jëmm ji ne adduna bi lépp danañ daw wuusi ko. ma leen waaye yow man Ousmane mu sell bi gars yi yaa nañ koy dégg léegi la ñu xam ne si tontu bi ah kon Zaka koy tontu Zak Zak Takefa war ngeen ko xam Zak Takefa ah. man la Jacques maa ngi leen di ziar patriote yëpp waa Aline TV waaw yow rek tey xam nga gis benn interview bu sama papa def sama kilifa. waaw après nag sama téléphone bëri lool ay message nag bëggoon sax ay interview yi ma waroon def mais franchement dama ne li ma ñu war a njëkk def mooy def waxee fi ma war a waxee muy fan muy patriote yi nga xamante ne ni ñoom laa àndal xeex bi parce que lii du amee rek ñoom ñu si bëri sax duñu bëggutee duñu buggul réagir man nañ ciy séntu mën nañ ciy seet waaye amuñ daal luñ ci seet ndax ci géemu politique nañu nekk man nag fi ma taxawoon gars yi tey laa fa gën a taxaw man bougé ma centimètre projet bu ñu Ousmane ko jaay et c'est même pas la personne de Ousmane Sonko parce que ñun tolloo tous aujourd'hui ñun ñëpp ñun ay Khadafi nañu ñun ay Patrick Lumumba nañu ñun ay Thomas Sankara nañu ñun ñëpp ñun loolu moo ñu boole ñu am chance aussi nekk génération boo xam ne dañoo tukki fépp ci àdduna gis vraiment lu bari jàngit lu bari ci yeneen nit ci yeneen xeet ci yeneen dëkk loolu la ñuy suñu réew rek nañuy yéene suñu réew donc mel nii man mënul soppi dara engagement bi ma am ci soutenir muy financièrement muy muy muy moralement muy spirituellement xeex bi nga xamante ni moom lañ bokk ñu def ay patriote pour soppi suñu xar-xaru kanamu réew donc je reste fi ma taxawoon fa la taxaw président maa ngi lay jaajëfal maa ngi gis liggéey bi ngay liggéey Ziguinchor temps yi rafet na trop di bëggee aussi sama bro kii la nit dof yes conseil xam nga waaw di kontaan lool ci ay gars yi xeeb ko si bi nag nit wala ngeen dooraat concert boole ko ci hmm? xam ngeen lii lii lii day na waar lii nu ngeen koy àttee Sénégal léegi dañuy jàll si deuxième activiste bi activiste Samba Abdian bi kii moom ma dama koy déglu ko waa kii dafa doy waar waa ji zap yekkali ñu xool yàlla nañ yàlla defal ndam hmm. gars yi fu ñu teg suñu bët dafa rëy tellement te ñuy lu leen jaral dafa bëri tellement sacrifice yu ñu war a def dafa bëri tellement ko ñun bu ñu dara freiné amul dara li nga xamante ne ni dañu war a freiné lu mu leen jaral rek nañu ko jaral loolu nag sama conviction la asalaamaaleykum. comme gars yi ni leen ko waxee woon ah, deuxième <laughs> deuxième baa ngi nii xoolal ko xaw ma nag nu mu tudd. waaye naa ne ñëpp di xam. di. waaw. dëgg la ñëpp àq baal nañ leen àq. nag yàgg na mais. dañuy jukki rek duñ xool lépp mais dañuy jukki bàyyi ko xel parce que sa waay ji dafa dafa dangereux genre gars yi nii nii nii dañu dangereux mais boo amul xel ak xalaat pour sa bopp yow di xalaatal sa bopp di xaar gars yi di wax pour ngay xalaat diw di jël position pour ngay dem si ginnaaw dol position hmm? genre gars yi dañ lay góox waaw bu fekkee da nga nekk si temps ci dëkk bi doo utiliser sa xel bi doo xalaat lu la wax rek doo xam ndax doo laaj ndax lu la wax dëgg la am dëgg ah yi rek si yi ngeen di mujjee genre manipulation yi dañ koy déglu mu developpe gars guddi na nag waaye Sénégal jar na ko waaw guddi na Sénégal jar na ko waaw déglu leen ko. su àjjuma ji. donc fas yéene rek partager live bi lu tàmbali avant timis di jot parce que aussi bu timis jotee nañ koy donc ñu def la maximum donc teel a teel a partagé après bon voilà parce noonu donc kenn bu nekk fi nga nekk aussi fekk nañ dafa dox la loxo. ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi am nañ yàlla musal ci fitna ci yee ko bu fitna yeeg yaa ko bu fitna yi bon voilà donc ñu xaar gars yi rek ci ci ci Facebook bi incha allah donc après bu sooba yàlla ñu mën a ñu mën a kii ñu mën a ñu mën a mën a continuer def li ñuy def ci yu demee noonu ay ñëw Cheikh Mahi Niass dañ waxtaan ak yéen ci bi jiitu mooy Cheikh Mahi al alim al alama, fa marham bi fa marhaban bi kon nga xamante ni moom moo ra artiste activiste sax na wax nag ngeen déglu man instant bii nii affiché si vidéo bi sax man balaa ñu may balaa ñu koy jéem a modifier naan sa waay xool leen ko nangam nangam moo tax damay ragal sax affiché wu si vidéo mi waa ji dafa doy waar déglu leen ko nag attentivement bu leen taay gars yi. islam raaya Sénégal tamit tasaare ko ci àdduna bi yëpp. donc lu jiitu suñuy kàddu dañ ko ndokkeel ne aussi dañ ñëw ci voyage ki nga xam ni keneen ki nga xam ni moo gàddu raaya Sénégal tamit jëm moom au sommet mondial muy son excellence le président Macky Sall ñu koy ñaanal yàlla aussi fi mu nekk donc yàlla na yàlla def tawfeex foofu def fa ngëneel def fa xéewal donc ba lépp li nga xam ni séntu na ko fi aussi mu ñibbisi fekk fii ay décision phare yoo xam ni jël na leen jagleel ko jàngalekat yi ginnaaw bu mu ay mesures phare ñi nga xam ni ñooy waa kër docteur euh, muy aussi waa l'armée bi mais aussi ñëw na tey am enseignants yi jagleel leen yokk seen i payoor yokk bu am doole boo xam ni ñoom seen bopp nangu nañ ni monsieur suta am Sénégal donc loolu dañ ci sant bu baax a baax di ko ci gërëm tey am enseignants yi jagleel leen yokk seen i payoor mu ngi noonu donc ñu bàyyi gaa yi ñu bàyyi gars yi rek euh, partagé donc Sénégal ci drapeau jàmm bi nga xam ni Sénégal kuréelu mbootaayu xeet Union africaine ñoom ñëpp kenn bu ne jéem nga dara waaye jéem nañu mais sottiwul yàlla dogal saalum saalum bii nga xam ni saalum bii la juddoo bàyyeekoo Sénégal dem fa wut solution boo xam ne tey àdduna bi ñëpp tey ñuy gestu Sénégal ci drapeau jàmm bi nga xam ni Sénégal mi ngi ko yor ci boppi àdduna bi mais aussi ci boppi Afrique ngir indi jàmm ak salaam ñu siy gërëm bu baax a baax euh, suñu yaay madame mi Touré bi demoon teeru ñu wax aussi peut-être que démb am na malanta waaye jéem nañu mais sottiwul yàlla dogal saalum saalum bii nga xam ne saalum bii la juddoo bàyyeekoo Sénégal dem fa wut solution boo xam ne tey àdduna bi ñëpp tey ñu ngi gestu Sénégal ci drapeau jàmm bi nga xam ni Sénégal mi ngi ko yor ci boppi àdduna bi mais aussi ci boppi Afrique ngir indi jàmm ak salaam ñu bu baax a baax euh, suñu yaay madame Mimi Touré bi demoon teeru ñu wax aussi peut Mame, <laughs> kii ak boobu tere ko mag gars yi déglu woon waa ji maaxallaa démb si gërëm bu baax a baax euh, suñu yaay madame Mimi Touré bi demoon suñu yaay daa am jëkk daa jëkkër <laughs> gars yi dëgg yaa ngi day waaj waaj ah xaw ma dafay répété xawma dafa dañ ko dikté mom dal mi ngi ni bo nga xolé yéen xam ne sax dañ ko préparer dañ ko préparer mom pion la mais nak du ci lenn mom mom mom bu leen ko victime bu leen ko jappé coupable mom victime la victime ki Ousmane Ousmane Sonko mo koy libéré ci kanam touti di ngeen comprendre ni mu leen bëgg wax ci waji ba baa leen ko mu développer ñu wax aussi peut-être que démb am na malentendu parce que dem nañ bay bay MC wax ci mais je crois bien que malentendu la parce que moment bi wax euh, peut-être mu ñàkk xam ni autorité yi ne ci réew mi yëpp ñu ngi doon jéem ay fexe parce que rien que ñu wax ni Cheikh Mahi mi ngi wàcc ci aéroport bu Dakar bu yoof rek déjà loolu euh, ça signifie beaucoup de choses par rapport ak disposition yi nga xam ni son excellence le président Macky Sall jël na ko aussi tamit euh, bu fekkee moom dem na gisagul woon ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy waa waa nguur gi ñoom ñooy état du Sénégal parce que tout simplement ñooñu ñi nga xam tey demoon nañ teel ju chèrement yi muy Mimi Touré muy ñoom Mor Ngom et consorts ñooñu xamoon nañ toutes les informations li téye woon sëñ bi li doon tax ak ñu nekkoon ci dox de concert maintenant avec les choses de ce pays lu mel ñoom de l'intérieur ministre des affaires étrangères et ñëpp àndandoo woon di dégganteeg sëñ bi di waxanteeg moom pour au moins incha allah ñu trouver les voies abi euh, avion avion privé bi mën a a jógee fi nga xam mooy ñaamee ñëw Sénégal donc peut-être Baye Mbaye MC wax na mais man ñu tam ci yooyu koy versé ci kaan bi nga xam ni peut-être il n'avait pas compris mais s'il avait compris il saurait que rien que le fait ñu ne sëñ bi day wàcc aéroport bu Yoff donc incha allah donc donc ça ça ça signifie beaucoup de choses donc loolu moo waral donc duñ sori bu baax a baax dañu gën a yitteel mooy mission bi xam ni doxi na ko dox ko ci turu Sénégal mais ci ki nga xamante ni mooy Maolana Cheikh Cheikh Ibrahim Niass loolu lu am solo la మన మైండ్ ల్యాబ్ వాళ్ళు ముందు వెళ్ళిస్తున్నారు మాట్లాడతారు మాట్లాడు మాట్లాడు donc euh, donc loolu lu am solo la lu am solo loo xam ni jaroon nañ ñu leeral ko sénégalais ñu xam ko. mottali lépp loo xamante ni ngëneel la ci lim lim. deuxième bi mooy euh, li nga xam ne nag son excellence la président Macky Sall tey mi ngi fee ci si ci moom it ci beneen fànn beneen wàll boo xamante nii gis nañ Emmanuel Macron dem na fa si Union européenne gis nañu ñu ngi waxtaan ak américain gis nañ mais président Macky Sall taxawaayam bu am solo leadership bi mu am Afrique taxawaay bi mu am Afrique jiite Union africaine jiite Sénégal muy réew moo xam ne actuellement exemple la tax na Vladimir Poutine mi nga xam ne ñëpp dañ ñëw dañ ko ragal. ñëpp dañ ñëwoon ñemewuñ ko am sax sénégalais yi doon foo ci tweet ak ci bu naan bu la wooyee bu ko jël vladimir ci boppam moo soxla président Macky Sall woolu ko mu ñëw sushi ñu toog waxtaan ci li nga xamante ni mooy jàmm gaay man yaakaar naa filmé de ah gars yi wala yéen a ngi koy dégg ma delloowaat ko. ko jël Vladimir ci boppam moo soxla président Macky Sall woolu ko mu ñëw suuf si ñu toog di waxtaan ci li nga xamante ni mooy jàmm foo ci tweet ak ci bu naan bu la wooyee bu ko jël Vladimir ci boppam moo soxla président Macky Sall woolu ko mu ñëw suuf ñu toog di waxtaan ci li nga. ci eh. <laughs> eh, eh. bu naan bu la wooyee bu ko jël Vladimir ci boppam moo soxla président Macky woolu ko mu ñëw suuf si ñu toog. Poutine moo soxla Macky woolu ko. <laughs> barke yàlla man ne war naa leen ko naa leen kii bu ngeen ko déglu barke rasulullahi di ngeen déglu yéeme. waaji dafa day waate ba pare dafa jara ragal <laughs> man <laughs> <laughs> dama ko sax ragal xaaral ma daw ci li nga xamanteni moy mooy jàmm ak Ukraine mu fas yéene bu fa ko dem ci benen réew bi nga xamanteni moy mooy réew mi jàmmarloog ci mais aussi en un en un vrai stratège président Macky Sall ci intelligence bu mu am xam ni toute guerre dafay susciter ay conséquences néfastes ci économie réew Russie nekk koo xamante ni ci wàllu mbirum blé ak ci wàllu mbir yu demee noonu da ci am doole ci mi moom mooy moom mooy moom mooy servir réewu àdduna bi son excellence le président Macky Sall au delà demal Afrique pour Afrique bañ subir li nga xamante moom mooy conséquence guerre boobu mais demal réewu Sénégal ci waxtaan ci cadre économique waxtaan ci ay partenariat yoo xamante ni réew mi du ci génne lu dul jàmm salaam ñu dem discours dem discours Vladimir Poutine ci respect bi ci am ndam même bu nekkee ñi nga xam ne jàkkaarloo président Macky Sall jàkkaarloo na ak ñoom kon lii mais président Macky Sall en tout cas lañ koy doyee ci Afrique lañ koy doyee ci Sénégal président Macky Sall mën ca tax def président Macky Sall ginnaaw bi nga xam ne Afrique leadership am ce n'est plus à démontrer ginnaaw bi nga xam ne Afrique ñoom ñëpp jubluwaay bi mooy Sénégal ñoom ñëpp gis ngeen ki nga xam ne moo jiite FIFA ñëw na fi kontaan lool ba mu taxawee ci stade bi sant Macky Sall gërëm président Macky Sall ki nga xam ne moo jiite CAF sant président Macky Sall gërëm président Macky Sall ñu dem ay quelque temps ñu ñëw ne dañuy defal stade bi nga xam mooy stade Demba Diop loolu li leadership président Macky Sall moo ko may boo demee Recep Tayyip Erdogan ñëw na fii Sénégal. Recep Tayyip Erdogan ñëw na fii Sénégal ci ay partenariat yoo xamante ni ci ay partenariat yoo xamante ni partenariat yu am solo la yoo xam ni incha allahu taala Sénégal moo ci am ndam ñu gis li nga xam ne mooy stade bi nga xamante ni mooy mooy euh, stade Bassirou bi gis li nga xam moom mooy stade bi nga xam moom mooy stade Abdoulaye Wade donc gars yi nag boo leen coupé ñoom dañuy insisté di ko rek quoi vraiment même gindi rek yoo koy xoolal jëlal sa temps boo wuyoo téléphone ba pare ñu continuer man dama lay xaar rek ak ma am jot njawrin Samba Abidjan <laughs> sawaay sawaay yow danga ngaa feebar xoolal boobu ba léegi nag gars yi déglu leen ko ay stade la wax président FIFA moo fi ñëw gërëm gars nee nañ sax stade Demba Diop dañ koy renouveler koy dañ koy joobaat saa yéen a ngi déglu abo bi ay ay feemam ak explication lii yëpp xoolal. am na lu mu bëgg a wax nag li yëpp ay laxasaay la am na lu muy laxas am na lu muy waaj a wax du wax nag jàmm moo tax man ay vidéo damay daw xamaguma nag turam parce que du ma yàgg say vidéo damay xool rek bu tàmbalee rek commencé def ay conneries rek ma daw mais ba ma demee ba xool ma ne kii osé na dafa osé quoi moom léegi ma ne il faut ma kay ma koy xool di ko suivre mais ba ma ko dégloo ma ne a ah, lii daal lii jot na ma jàllale ko quoi jàllale waa ji parce que waa ji Sàmm Abidjan lay liggéeyal déglu leen ko mooy continuer nii di dóor ay programme di wax ay programme tey live te te nag Ousmane moo ko tax a jóg <laughs> mais déglu leen ko kuy day wiiri day wër mais mi ngi ñëw xam nga ponkal bi moom booy ñëw boo koy song <laughs> da ngay wax fi làqatu yëpp moom fi mu làqatu lay wax gars yi ay tata madame Mimi Touré xam nga foofu yow la laaxatu pour mën a attaquer sawaay waaw Ousmane Sonko Sénégal la xanaa xanaa benn nit laa gis moo xamante ne moom bu koy attaqué du xool tooy na du xool wow na day ñëw rek songu mbëkk jàll muy Abdou Karim Gueye nitu dëgg des valeurs muy ku ñu war a taxaw ku ñu war a jàppale ku ñu war a déglu tamit parce que am na taxawaay gars yi bàyyi leen ko xel Abdou Karim Gueye bàyyi leen ko xel Sénégal amal na ko njukkal defal na lu ne Sénégal jox na léppam Sénégal jàng naa jàngul loolu seen yoon nekku ci ñi jàng ñoo ñu dugal ci tuuxi dund yi yëpp te buñ leen fi continuer bàyyi duñ ci mës a génn parce que seen lépp ay code la. dañuy wax seen wax sax ba pare ne la waroo cee wax waaw fii lañ ne nul n'est censé ignorer la loi te mu leer ne loi boo ko mitrole maîtriser wala nga war ko xam il foog nga jàng ba def droit fac droit te fac droit sax doo ko xam dangay nekk avocat wala nga nekk wala nga nekk ci côté boobu côté yooyu pour nga mën a xam lenn si loolu Hmm. mais bu dul loolu bon fekkee comme li ko gars yi waxee citoyen lambda nga yow dee nga de yow loi yow loi yow mënoo xam loi waaw parce que loi bi dafa yéeme loi loi bi nag du diine de gars yi ngeen bàyyi xel lan mooy loi du Sénégal loi bi lan la balaa may droit teg débordé day wéy appel nañ koy xaar day wéy appel Macky Sall séq nag ñooñu relation particulière séq nag ñooñu respect ak estime ak égard ba ñooñu ñëpp kenn ku ne yaa ngi yàkkam di ñëw Sénégal gis nañ ba dem Allemagne aussi même bu nekkee tey gis nañu ni fitna gi mi wax naan ay xawma Allemagne ba suñoo ñëw Sénégal ba suñoo ñëw Sénégal kay parce que dañoo gis luñ mës a gis. nit a fitna bi bi mooy Ousmane Sonko dégg nga kenn ku ne yaa ngi yàkkam di ñëw Sénégal gis nañ ba ki dem Allemagne aussi. Mhm. même bu nekkee tey gis nañu ni fitna gi mi wax naan ay xawma Allemagne ba suñoo ñëw Sénégal. même bu nekkee tey gis nañu ni fitna gi muy wax naan ay xawma Allemagne mosu ñoo ñëw. même bu nekkee tey gis nañu ni fitna gi muy wax naan ay xawma Allemagne mosu ñoo ñëw Sénégal mosu ñoo ñëw Sénégal kay parce que. gars maa ngi dawaat de kii moom du ma ko fee xaar. dañoo gis lu mës a gis muy président Macky Sall dañoo gis leadership bu mësul gis. dañoo gis une politique publique extraordinaire muy le seul référentiel politique publique yi muy le le PS muy le plan Sénégal émergent ñu gis ni président Macky Sall président bi nga xam ne en 2012 daa demoon lépp ji pour ñoo fay ay salaire cette situation boo xam ni enseignants ñi ngi grève déglu leen bu baax li may wax 2012 président Macky Sall ba mu ñëwee ñëw Sénégal kay parce que dañoo gis luñ mës a gis muy président Macky dañoo gis leadership bu ñu mësul gis dañoo gis une politique publique extraordinaire muy le seul référentiel politique publique yi muy le le PS muy le plan Sénégal émergent ñu gis ni président Macky président bi nga xam ne en 2012 daa demoon lépp ji pour ñoo fay ay salaire fekk boo xam ni enseignants yi daa demoon lépp gi pour ñoo fay ay salaire fekk situation. boo xam ni entre ñaar ñi muy le le Sénégal émergent ñu gis ni président Macky président bi nga xam ne en 2012 daa demoon lépp ji pour ñoo fay ay salaire cette situation boo xam ni entre ñaar ñi grève déglu leen bu baax li may wax 2012 président Macky Sall ba mu ñëwee situation sociale bu réew mi en ébullition tous les signaux étaient au rouge enseignants yi di grève médecins di grève courant di coupé gaz amul ndox mi am ay bërepp yo xam amuñu dëkk yi amul courant bari tali yi piste yi donc loolu yëpp nekkoon sénégal lool la lool rek feebar la ñuy wax ni malade la sénégal malade la boo xam dafa nekkoon ci urgence président Macky Sall xam ni sénégal malade la boo xam dafa nekkoon ci urgence mu indi plan d'urgence pour développement communautaire jagleel ko réewu réew mi nga xam moom rural la mais li mu réussir prouesse bi mooy le plan sénégal émergent bi yéem réussir yéem Allemagne yéem France yéem Turquie yéem ñi nga xam ne yéen ngi toog di ko di leen lim li leen yéem mooy comment le président Macky Sall a réussi en 10 ans malgré le fait qu'il est venu au pouvoir et a trouvé une situation catastrophique mu en moins de 3 ans man en moins de 3 ans président Macky Sall réussir le mix énergétique dégg leen bu baax en moins de 3 ans président Macha bu ndike ñew mu xamni réew mi son nañu ci walu dara yi ci walu salaire yi ci walu benn bu nekk nit ñi son nañu mu ñew indi programme social indi bourse de sécurité familiale indi couverture maladie universelle wàññi les impôts sur les salaires daw dem nak négocier le mix énergétique de une politique énergétique bo xamni bu fekkoon 10 yóbbu na cent maanaam da ko multiplié par cent ci le wàllu benn en moins de trois ans gars en moins de trois ans président Macky Sall réussir le en moins de trois ans gars en moins de trois ans président Macky Sall réussir le mix énergétique dégg ngeen bu en moins de trois ans président Macky Sall bu mu njëkkee ñëw mu xamni réew mi son nañ ci walu dala yi ci walu salaire yi ci walu rek mi son nañ mu ñëw indi programme social indi bourse de sécurité familiale indi couverture maladie universelle bu gaay ñàkkee fu ak fayre di la déglu ngay lim ay ay ay lu la neex nii xoolal man man nekkuma foofu de da ngay gaaw yaa deg dégg dañuy jukki sam waaji ngay lim nii rek di di dem yow lan la yow xana ko ci dëkk bi ak dund bu seer bi gaay nekké nekkee di yok rek yow xana do def xana yow <laughs> non mais nak c'est normal c'est normal bo nekké pouvoir do yek li askan bi di dund do ko mëna a bu lokay wax sax ay ay ay lepp la lay la lay def yene ngi fatale ko Abdou Abdou Diouf biñ koy wax ne ko takku mbuusu meew juróom lay jar muy joy ni ki ni lu raw lu raw Abdou Diouf lu leen Abdou Diouf sax mo lañ tane waaw parce que Abdou Diouf sax au moins mom moom socialoon na mais yéen <laughs> yéen ngeen xawul la ngeen def te yàlla Sénégal ak fulla bi ak arñi bi ak veer yi nee na yi dañuy coupé laay xam nañ li ngeen di joobee mais amul solo yéen a ngi def ñi ngi note ñi ngi dégg ñi ngi gis alhamdulilah bisi ngi si bisi nak, te yàggatul da ngeen leh, guru nguuru leen la jor sax jaar na fi ba jàll Hitler jaar na fi ba jall Firawna yi jaar nañu ba jall ma ne lu fi dul jaar ba jall gisuñu ko de waaye jamono ju ne jamono ju ne jàmm bu si jamono ju ne war naa tànn position te jamono ji dafa yomb ñoom Mark Zuckerberg ñoo fi nekk waaw ñoo andi Facebook andi Instagram andi youtube andi tiktok da ngay wax aduna bi yëpp di deg te do def do bouger xam loolu kéemaan la te ku ka def mark xala bu ndaw la xala bu ndaw ndaw la ki taxaw fi di wax ay plan wu yelwaan plan yelwaan estar bu ne ñoko liggey rek bu ñu muree ruban bi ñu ne don offert par la république de nangam nangam ñu bañ ba tëdd ci suuf ne li war affaire bi stade bi mooy loolu mooy prix bi doy na waar gars yi xale yi onze xale yi yi ngeen wax ñu ne ëpp na xale hmm? hôpital Tiwaawoon yow nga toog fii am fit ba dee orange ba dee te vidéo bi bu yàgg vidéo vidéo bi yàggul xam nga ne yàggul mu am audace taxaw naan Cheikh Mahi di seytaane di ñu jaxaseeg àdduna Cheikh Mahi Niass moom dina génn waxal boppam gaay yi kii li mu wax Cheikh Mahi Niass bu leen si basé Pape Siré Fall dina ko jox micro dina génnaat dina génn ñëw wax waaw ngeen ñu ñu waat ko tuuti xel mu xaw a jeexal ñu dem suñu yoon parce que sama waa ji man dama ko ragal après nag yéen mu ngeen dem wari ko si Facebook beeg si YouTube bi ngeen dem déglu ji ko ngeen xam ba ban nit la mais man moom xam naa ko canaliser naa ko activiste Samba Abidjan la waaw yéen nag laaj jottali rek ngeen comprendre. dina waxal na la Amadou bara Sénégal bo aboneegul gis nga gis nga bouton bouton bu xonk bi bouton bu xonk bi gis nga ko wala mi ngi nii si suuf wala sama baaraam bouton baa ngi nii dang koy bës boo ko bësee xoolal cloche bi day nekk si wetam nga bës cloche bi boo bësee cloche bi nag buñ dugalee vidéo yow yaay bokk si ni ko njëkk jëm ci taxaw setlu ñi amal jamono ñu nek dinañ gën andi taxaw setlu ci actualité bi li fi jotta xew motax titre bi duñ ko changer dañuy def rek Amadou Barrow senegal taxaw setlu ci tollu way rew mi dinañ commencer di def ay numéro numéro 1 2 3 ainsi de suite parce que buñ naré def titre rek dañuy fossé objectif bi parce que mën nañ titre ben affaire ubbi vidéo yi di jukki xel ak xalaat yi di daw leneen ak leneen génn ci te buñ defee titre rek dañuy tënku te bëgguñu tënku wax suñu xalaat la sa xalaat nag boo koy wax waroo tënk waroo ne on débat on on peut on va débattre sur ay wax sa xalaat sujet bi lii la loolu foon ko déggee manipulation la ak bal de sonde bu ñu teg pour peuple bi xam fa lañ ci taxawee ngeen bàyyi ci xel ku leen di tënk di leen naan ni ngeen war a waxee wala ni ngeen war a gisee gaa yi kooku day manipuler day manipuler kon nag ñu ñu ñu ñu xaw a terminer sawaay jarbaatu mimi madame madame mimi <laughs> sawaay du bàyyi de gis ngeen ko revirement bi universel wàññi les impôts sur les salaires daw de nag négocier le mix énergétique de une une politique énergétique boo xam ni bu fekkoon dix yóbbu na cent maanaam da ko multiplier part cent ci li nga xam ne mooy dispositif yi mu teg parce que bu leen fàtte ni am ak Macky Sall ñëw dañ ñu doon wax ci nguuru Ablaye Wade yal na yàlla guddal fanam ñu ngi koy souhaiter anniversaire ñu ngi koy ñu ngi koy souhaiter excuse waaye excuse ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire vraiment donc ba ñuy ñëw dañ doon wax ni lu we nañu groupe mi ngi jugee ci géej gi di ñëw dañu doon wax ni fuel bi fuel bi luwee nañ ko mi ngi bato yi xaar leen Ablaye Wade génn fii na leen nañ dellu cosaan nañ dellu dem di jëndi sondeel dañ ko fàttaliku bu baax avant 2012 nañu dellu cosaan nañ dem di jëndi sondeel moment boobu sondeel amaat valeur. sondeel yokk këriñ yokk parce que gaz moo leen nañ dellu cosaan après dañ leen xam luy cosaan lan moo tax mu sell mi naan sawaay tàppet la sawaay dafa ragal ni leen nañ leen cosaan comme que moom moo ne cosaan nañ dellu cosaan yoo xamoo luy cosaan den la wax luy cosaan cosaan ay waay cosaan baay cosaan yàgg na de courant di coupé da ngay santele doo ko sant 3h de temps nit ñi dañuy waja fayé ko da ngay dem état ñu woon fay xamutu doon def da doon dem defi ji ñu mu tud avance sur salaire banki ñu doon fay bu démé ba ay quelque temps nguur gi do ra rembourser président Macky Sall situation ba lu fekk fi ay bon MP ci walu mbéy mi loolu la fekk fi ay tali yu yaq da ngay jël route Kaolack Fatick wala nga jël route Kaolack Passy ñoo di ñoo Kaolack euh, Passy fu ñu jëm Kaarang wala nga jël yoonu Kaolack ñooro jël jëm dila ba euh, Kam rural dafa ay périmètre périmètre maraîcher tabaxal leen piste boo xam ne yow mi bëy teg ay périmètre maraîcher mais anus ngeen bal ma baax maa ngi jéggi ma ñi may déglu dama bàyyi

waa ji ku doy waar la kii kii ku mën a taal réew la kii kii yàlla non yàlla day na yàlla yàlla yàlla njaboot waaye nag yàlla baax na ba ay nit ñu am xel nekk ci dëkk bi waaye li ci des duma ko teg léegi nag comme comme moo nekk cosaan dinaa andi benn vidéo bu yàgg ñu bàyyi si xel gaa yi après nag ñu tëj parce que man sonn naa man man gaañ bi doy na gaañ bi man daf ma yàq man pare naa si gaa yi génne soldat si génne arme bi da nga maam génne police na si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañu dem toog ñaxtu kooku dafa nekk jéggi day donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génnee de fekk situation am dara xewul loolu dañuy dem toog place de l'indépendance maa ngi leen génne armée di armée boo ko génne foo ko jëmale si peuple taxaw naan dañu génne soldat si génne arme bi danga nga maam génne police gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañuy dem toog ñaxtu kooku dafa nekk jéggi day donc lu ëpp la armée ñu ko génne day fekk situation dañuy dem toog balaa da leen maa ngi na nga génne armée di gaay di leen jox dig daje di leen wax ne leen Amadou Baro Sénégal la activiste lanceur d'alerte patriote africain mais sénégalais d'origine di leen wax ne leen soo aboneegul gaañ ba sa bu xonk bi So abane ba pare nga boole ci cloche bi bu ko defee taxaw seetlu bu yegsi rek yow da ngay bokk ci ni koy njëkk jot Amadou bara Sénégal la gaay l'histoire du Sénégal retiendra gaay li yëpp l'histoire du Sénégal la retiendra ci nit ku doxi woon jàmm ci réew yi Afrique. xam naa daal suñ euh, dirigeants africain yi war nañoo def un peu d'effort parce que seen meroo ñoom kese kese population bi war ta nekk victime loolu hmm? parce que sàmm population moo leen fi tax a nekk te seen euh, seen xëccoo ñoomu kese nar a def population bi victime. loolu dëgg-dëgg du du jaru ko jaru ko parce que lu ëpp lu ëpp intérêt nit amul ci àddina bi lu nit di dox pour intérêt boobu réaliser wu defut kenn defut lu gën loolu te wóolu nañ leen pour ñu diriger ñu bon nag war nañoo ëpp di xool seen bopp ñoom kese kese xool population bi leen teg fii pour responsabilité yooyu parce que jafe-jafe boo xam ne diggante euh, diggante Mali ak ak pays africains yi indi problème bu yem nii tardeel ay nit tardeel ay intérêt tardeel ay nangam ak nangam te loolu yëpp dëgg-dëgg euh, du du euh, population bi ñooy nekk victime population yi ñooy nekk victime dëgg-dëgg war nañoo bàyyi seen xel.

ñu wutal yoo xam ne Afrique lay doon ñu wutal suñ bopp yoon yoo xam ne moo gën a dëppoog ñun du yoon yoo xam ne dañ koy koppi rek jëlee ko ci France wala Amérique loolu seen yëf la ñoo ko moom ñoom la jik du suñ yëf ñun war na nañoo jàngaat yeneen jàng yi ñoo xam ne daal ëpp na rek euh, di coppi rek di tëral di coppi rek di tëral ah war nañoo xalaat ci itam bu baax a baax avenir future génération bi di màgg ñi ngi lay di nuyu di len ziar man seetlu bima ma seetlu ku ko seetlu après man nga duggal ci commentaire yi nga wax ma ndax gis nga wala gisoko bu dee dëgg ak guddul dëggit nga wax ma liko dalé sun suñu dëkk Kër Matar Yadde Mbisaaw Ndey Ngomeen Njëgal golam ndam jander ba ci Kër musa Bayax ak Puuti Malikumba gi nga xamné moy sunu dëkk bu mag bu soxla fa la ñuy dem sun dëkk bu ñew mi lum dédé daana am lum dédé fukki wala 20 personnes yo xam dañuy tak jabar tabaski nak mo doon jël tonkaare gu mag gi ndax ku ne tak jabar liko dalé sun secteur bi te ren li ma fi dégg cay ceet bu fekkee mat na 4 wala 5 ci secteur bii ma lim nii yaakaar naa boo ko ëppee ca ana lu tax ndaw yi métier leen jàngoon ñi nekk cooto yi ñii danoo mujjoon bàyyi ñëpp nekk ci àll bi di bay nekk ci soble bi di nga xamante ne bi moom ci la ñuy liggéey soble bii ñu nekk di ko liggéey mi ngi nii mi ngi nii tege ci la ñuy liggéey ñu ci bari mënuñu koo jaay soble baa ngi yàqu ci marché yi ak ay xat-xat te gis ñu ay baana baana yoo xamante ni koy jënd si saakub soble bu nee ba di ko jaay 3500 ak i 3000 francs ak boo ko dindiwul te première taw fene taw na lépp a ngi commencé di yàqu waaye loolu lépp moo noon naa taxaw ba ngeen maanaam am fu ngeen jaayee defaluñ ko moo noon dinaa leen jàppale ci engrais ak période ba mu yomb defaluñ ko moo noon dinaa leen a am normalement te du métti te du seer defaluñ saako li muy jar sax fi kilo soble jaru ko nga bay ba pare xoot saako bi war a def soble bi daanaka kilo soble du ko jar mais loolu lépp ay métti métti la état boo xamante ne bii féetewul lu askanam ñu ngi ma sawu nguur gépp daanaka dang ko ñi ngi liko dalé 2019 ba suñu jamonoy 2022 bi lim ci wax ñi ngi masawu mo ëpp li nga xamante bi do mar may contane nan ko ci waye ay metti metti la lool lepp xañ dina mësa a jeex ci kàttanu suñu borom waye ni ngeen bayyi xel ni réew mu gëna metti métti Sénégal man yaakaaruma ne amna ni ngeen bayyi xel ni réew mu gëna tar Sénégal man yaakaaruma ne am ab dekk likoy neexal moy ku febar faju ab dekk likoy neexal moy ku xif lek ab dekk likoy neexal moy ku mar nan ab dekk ku likoy neexal moy yitte jom faj ko Sénégal la gis nga am passeport te do am visa Sénégal la gis nga am permis te mën a dawal oto ci Sénégal rek laa ko gis muy réew mu tar muy réew mu métti muy réew mu xat képp ku fi ne di ndaw na nga gëm sa bop te loy liggéey nga bañ ko yak ta fa nga ne nga japp ne moy say tol bu nu décoracé wu lu nu Macky Sall xor ñoo ñoo xor ñoo bu nu taxa décoracé wu inshallah dañuy dund rek mu jeex bañu dé mu jeex te fi yëg dem 2024 wul yalla sa borom def ci réew mi jàmm Macky Sall mom la tuddee nakari kay métti dekk risque dépasse lo ta nakari jël lo togg da naka yëpp dang koy touré sa njabot ni lacc la cyalal bo boo njabot njaboot daj lu ne ngeen di doxee menace di xupp nit ñi jaaxal ngeen nit ñi te nit ñi mënu leen yobbu seen fit waaye yalla yalla doon ci jamm ci réew mi